ngeen jokkoo incha allah yàlla may na ko ca xam-xam moom nag ay mbiram amul caaxaan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 képp ku jokkoo ak moom yal na sa aajo faju laata ñuy door revue de bi nag ñoo ngi fàttali képp ku ñuy topp ci youtube bi su fekkee abonné gul ci sunu compte tiktok li ñu koy ñaan moo di mu dem ci commentaire youtube bi dina fi gis lien tiktok bi mu mun a abonné ci sunu tiktok tey jii nag dimanche la journalu sénégal yi benn ñëwut waaye fii ci réew mi tey jii làmb ju mag am na fi waaye ligue bu sénégal it day am tey jii démbit amoon na laata ñuy ñëw ak yéen ci làmb ji dañ leen di jox ligue bu sénégal démb bu ñaari match moo amoon mu soxaloon deuxième journée maanaam ñaari lu bëccëg tey jii nag la ñu koy wëyal résultat wu démb yi nii la demee Casa Sport moo doon jàkkaarloo ak Guédiawaye football club waaye Guédiawaye football club moo am ndam ci kawam benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur doon jàkkaarloo ak Jaraaf ñoom dañoo témboo kenn ku ne benn bit nga dugal ci sa moroom morom match yi ñuy xaar tey jii nag yëpp quatre heures et demi lay door match yooyee bokk na ci jàmbaar mooy dalal Sonacos la Linguère de Saint-Louis di dalal AS Pikine Fatick di dalal stade de Mbour suba nag la ñuy yeggali ba bëccëg bi génération foot mi yor bi jamono jii mooy dalal US Gorée match boobee suba quatre heures et demi la kon gaa xaar leen match yi am tey ak suba soxal Ligue 1 bu ñu door revue de presse bi doore ko sunu lamb lamb ji Sénégal gépp di xaar tey jii war a dox ci diggante Modou Xarañ Lo ak Ama Baldé le journal bi fësal ci xët wu njëkk wa rénkum daje dina am tey jii ci diggante Ama Baldé ak Modou Xarañ national la làmb joojee di amee bu dee Ama Baldé moom la ñu njëkk a convoqué ndax nee nañu ko lu mu guddi guddi fu quatre heures quarante cinq jotee bëgg na ñu laa gis ci arène nationale bu dee Modou Xarañ Lo moom dix-sept heures maanaam cinq la ñu ko wax mu teew ci arène nationale lamb jooju nag ki ci wax du kenn ku dul ancien tigre de Fass di Moustapha Guèye li mu xamle moo di kat mën nañoo gis làmb ju gaaw lool ci diggante Modou Xarañ Lo ak Ama Baldé di sëll ndaw nekkatul xale combat bu neex nag la ñuy xaar waaye ñoom ñaar nag def nañu jaloore ci arène bi ndax ay palmarès yu riis lool la ñu am rawatina Modou xarañ loo moom bu ñu xaymaa li mu bëri lépp mi ngi toll ci vingt-trois combat maanaam ñaar fukk ak ñett ci ay combat am na ko am ci dix-neuf victoire maanaam fukk ak juróom-ñeent ci ay ndam defet maanaam jill ñett la ca am ak benn nul maanaam témboo ak ki mu doon jàkkaarloo loolu mooy palmarèsu Modou xarañ loo bu dee Ama Baldé la am maanaam fukk ak juróom ci ay combat am na treize victoire maanaam fukk ak ñett ci ay ndam ñaari défaite maanaam jël loolu mooy palmarèsu ñaari mbër yi tey ji nag fan la couronne bi di dem loolu laay samp laaj ci commentaire yi ndax jamono jikat Modou Xarañ Lo moo ko yor ndax mooy roi des arènes tey jii la nag nañu ñaan combat bi door ci jàmm jeex ci jàmm ñi jugee parcelle ñibbi ci jàmm ña dëkk Pikine dalaloon waa parcelle ñoom it dellu seen kër ci jàmm ndax jàmm joojee moom la moom la ñuy sàkku ci combat bi ndam li fu mu mën di dem du génn réew mi kon nañu ko def ci fair play ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe wa olympique bu Marseille la journal bi fësal ca wu njëkk wa l'OM à côté de la plaque démb Lille la ñu dalal ca Vélodrome waaye dañoo témbo 0-0 la match boobee jeexee démb nag Marseille doxal nañu waaye li leen tëm moo di dugal ab bit ca cëppaandaw ga nag ñu témboo ak lil jamono ji nag waa Marseille doxaluñu ca Ligue 1 bu France ndax ñoo nga ca huitième place ba maanaam ca juróom-ñetteelu place ba bu dee ñaari doomu Sénégal ya fa nekk Ismaïla Sarr Sarr titulaire doxal bu dee Iliman Ndiaye ci deuxième mi-temps bi la dugg waaye ca cëppaandaw ga nag dañoo ànd ak Olympique bu Marseille nil ak Lille mi ñu doon dalal démb ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport waa Manchester United rawatina Bruno Fernandes ak Eric Ten Hag mi leen di tàggat le journal bi fësal ca wu njëkk wa Eric Ten sax ki ko sauvé du kenn ku doomu Portugal bii Bruno Fernandes fëlaam lañ doon lool match bi tàngoon lool ca cëppaandaw ga nag doomu Portugal bi moo dugal bit bu ama am solo tax këlëbam di mën Manchester United am ndam waaye moom mi moo sauvé Eric Ten Hag ndax njiitu këlëb boobee rawatina président bi li mu xamaloon doomu pays ba bi moo di match yi di ñëw soo ca amul ndam mën nañu laa dàq démb nag am na ndam lu ama am solo waaye na ko sante doomu Portugal bii di Bruno Fernandes bu nekkuloon ak moom rek làmbaay mën naa ñaaw démb nag ñoo ngi doon jongante fukk ak lu bëccëg maanaam onzième journée waaye kat waa Manchester United juróom benn ndam maanaam six victoire képp la ñu amagum ca Premier League ba ak cinq défaites kon ni ñu dooree Premier League bi baaxul Premier League boobee tamit punkal daanu na fa démb muy waa Arsenal Newcastle moo leen dalal def jaloore duma leen benn bal ci dara mu nekk seen défaite bu njëkk nag ci saison bii ñu nekk soxal Premier League bu dee waa Manchester City ànd ak Pep Guardiola mi leen di tàggat ñoom démb dañoo doxantu ci kaw Bournemouth juróom benn bal ci benn lañ ko gañe jamono ji nag Manchester City moo jël pee waaye dafa tooga ndeegum ndax Tottenham suba lay football ñoom Chelsea la ñuy jàkkaarlool su fekkee am nañu ndam rek dinañu jëlaat première place bi ci Manchester City waaye jamono ji moom Manchester City moo jël pee li leen ko may moo di ndam li ñu am démb ci kaw Bournemouth juróom benn bal ci benn ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Arda Güler la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa doomu turki bi de dugg na ci mbir mi ba mu demee ci Real de Madrid ak tey ji nag mosuñu ko convoke ci ab match li ko loon nag bokk na ci ay blessure yu ko sonaloon jamono ji nag wér na mi ngi à cent pour cent tey ji Rayo Vallecano bu ñoom pate six la waa Real de Madrid di jàkkaar lool noppi na ngir football minutam yu njëkk mu doon nag yoon bu njëkk ñu koy woo muy Arda Güler waaye doomu Argentine ko gone gi milieu de terrain bu mën la muy def la woo nañu ko ci équipe bu Real de Madrid bi ngir mu ñëw jàppale Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti moomee sax mi ngi wax ci Arda Güler nee na yàkkamtiwuma ci ay mbiram dara ndax gone gi li ma bëgg moo di ànd ak moom liggéey ba mu gën a am doole ndax jamono ji amagul doole te xale la li ma bëgg moo di liggéey ak moom ba mu am doole ku ko wokk mu xuri la ku ko dóor épaule mu fayu loolee la Carlo Ancelotti xamle démb nag waa Real maanaam ab bataaxal wax ci kiliyan Mbappé nee na ñu ñoom dooru ñu waxtaan ak Kylian Mbappé woowuñu ko ci ruqu mosu ñoo wax ak Kylian Mbappé ci lu jëm ci wàllu transfert maanaam jugeel Paris ñëw xaatim contrat ci sunub club Real de Madrid nee na mosul wax loolu ak Kylian Mbappé kon nag ñiy wax naan Real de Madrid mi ngi waxtaan ak Kylian Mbappé ñooñee li ñuy wax xamuñu ko ndax Real de Madrid nee na mosul waxtaan ak Kylian bappe démb la ñu amal communiqué boobu. ñu jugee Marca yéene kaay jël aas yéene kaay waa Real de Madrid rawatina ponkal yi mu yaakaar tey jii la journal bi fësal ca wu njëkk wa bokk na ci Rodrigo Goes Luka Modric ba ca Bellingham tey jii nag li ñu bëgg moo di. am ndam ngir mën a jëlaat première place bi nga xam ne jamono ji Girona moo fa toogagum Rayo Vallecano la ñuy jàkkaar lool waaye seen trident bi nag ña fa noppi nañu muy Bellingham Rodrigo Goes ak Vinicius Junior waaye Arda Güler it bokk na ci list bi tey jii mën naa am mu football minitam yu njëkk ak waa Real de Madrid bu dee waa Rayo Vallecano moom seen attaquant bii tudd rawul de Tomás gëj naa dugal bit li mu bëgg nag tey jii moo di fekk Real de Madrid doxal dugal ngir dakkal ñàkk dug dugal gi mu ñàkk dugal bu yàgg lool muy Raoul de Thomas bu dee waa Girona moom seen mbégte mi jeexagul ba léegi ñoo ngi doxal démb Osasuna lañ doon jàkkaar lool gañe ko ñeenti bal ci ñaar kon jamono ji nag kenn mënu leen a téye ñoo jël pay ci Liga e-Sport ba Marcelo tamit mu ngi ci journal bi éternel nag la ko journal bi tuddee keñ lay jeexal li ko waral moo di démb dafa amal jaloore ndax mooy champion Copa Libertadores jaloore jooju nag démb lañu ko amal moo di Boca Juniors dem nañu nag ba prolongation ci cëppaandaw ga Fluminense gagné ko ñaari bal ci benn Marcelo ànd ak Fluminense nekk champion foofee ca Brésil ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Ronald Araujo le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb nag moo sauvé waa Barcelone ndax démb Barcelone ca Anoeta la demoon fekki fa Real Sociedad Barcelone gi ñu gis nag démb kenn xàmmewu ko ndax doxuñu doxluwuñu li ko waral moodi di kat Real Sociedad dafa doxantu seen kaw football leen waaye li ëppoon solo moo di ndam te am nañu ko am nañu trois points yu am solo lool quatre-vingt-treizième minute ci la doomu Uruguay bii di Ronald Araujo dugal bit ba am ca match ba ñàkk a doxuk Barcelone sax Xavi ko koo bi match bi jeexee waaye nee na rawatina ci vingt premières minutes yi maanaam ñaar fukki minutes yu njëkk yi xar kanam bi Barcelone wane démb nag tiital na lool njiitu club boobee ndax xamuñu ko Barcelone démb doxut loolee la bii di esport xamle ñu juge esport jël Mundo Deportivo moom it Ronald Araujo la fësal ca wu njëkk wa Araujo jo sax la ko tuddee punkal mi du kenn ku dul moom démb ndax doomu Uruguay bi bu nekkul woon ak moom rek làmbaay mën naa ñaaw Barcelone mën naa am match nul ndax bit bu cate lool la dugal am solo lool it ci këlëbam di Barcelone ndax dimb bu ñu amoon defet rek seen xel dina teey ci Liga e sport bi waaye ci ci pàndaw ga am nañu ndam Barcelone nag dimb kenn xàmmewu ko xar kanam gi mu wone démb teey na xelu waa Barcelone gépp rawatina njiitu club boobee ndax Barcelone gu néewee doole nii Barcelone gu bone nii gëj nañu koo gis loolu nag du samay kaddu kaddu surnal bii di Mundo Deportivo la bu dee waa Real Sociedad moom journal bi nee na ñoom ñoo yàq seen match ndax li ñu rate ci ay occasion dafa bari lool ci fàttali match boobee bi mu jeexee Ter Stegen la ñu tànn mu doon homme du match waaye li amoon solo moo di ñetti poñ yi te jël nañu ko jamono ji nag benn poñ képp moo dox seen diggante ak Real de Madrid loolee la journal bii di Mundo Deportivo xamle ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Lautaro Martinez la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa sprint Inter Inter nag mi ngi daw jamono jiite kenn mënu ko jàpp démb Atalanta bergam la ñu fekki woon gañe ko ñaari bal ci benn but Inter yi ñii ko dugal Calhanoglu dugal na ak Lautaro Martinez jamono ji nag dëggal nañu seen bopp ca bopp classement wu Serie A ba bu dee waa Napoli ñoom démb ca Salernitana bu ñoom Boulaye Dia la ñu demoon gañe leen ñaari bal ci dara bitu Napoli yi ñii ñoo ko dugal Elmas dugal na ba ci gone gii di Raspadori ñi ànd ak ki leen di tàggat di Rudi Garcia am ndam lu ama am solo bu dee waa AC Milan ànd di tàggat di Pioli ñoom démb nërmelu ca San Siro Udinese moo fekki bett leen gañe leen benn bal dara match boobee sax bi mu jeexee supporters yi dañoo mer ba futtu ba yuuxoo jour yi jamono jii nag waa AC Milan doxaluñu kon li leen war moo di jëmbat fu doxal di am ay ndam bu dee waa Juve moom ñoom nee nañu noppi nañu ngir songu mbiru gone gii di Berardi Berardi nag ma ngay football ca Sassuolo yàgg na fa lool am na fa douze ans maanaam fukki at ak ñaar def na ko foofee Juve nag li ñu bëgg moo di songu ay mbiram jënd ko doxalee woon ak Locatelli noonu la ñu bëgg a doxalee ak gone gii di Beraldi maanaam Sassuolo jox leen ko ñu koy fay par pàcc maanaam ñu koy fay nànk-nànk ba mbir mi mat jamono jii nag waa Juve ànd ak Maximiliano Allegri nee na ñu noppi nañu ngir songu ay mbiram ñu jugee Corriere dello Sport dem fekk fa la Gazzetta dello Sport Lautaro Martinez la fësal ca xët wu njëkk wa Inter de kenn mënul leen a jamono ji démb Atalanta Bergame la ñu fekki woon ñaari bal ci benn ndam loolu ñu am démb nag am na solo lool tax na jamono ji ñu dëggal seen bopp ca bopp classement ba bu dee AC Milan moom démb dañoo nërmelu ci kanamu Udinese match bi sax bi mu jeexee dañ leen doon yuuxoo ndax jamono ji seen wujj yi di waa Inter ñoo ngi leen rawee juróom benn poñ maanaam six points moo dox seen diggante ak Inter tey jii nag foofee ca Italie ñoo ngi fay xaar match bu nar a neex Fiorentina mooy dalal Juve Juve ànd ak Massimiliano Allegri nag li ñu bëgg moo di am ndam